maa je tudd Mohamed Mouhamadou Moustapha Diagne man maay porte-parole du jour au collectif des ex-agents de la SOTRAC de Amas Sénégal et de la CIAS. waaw tey dañoo dajaloo fii parce que dafa am lo xamné li mom lañuy revendiquer et ñu am ni ñu koy revendiquer moy def une grève de la faim li tax l'État sénégalais nous doit ay euh, montant yo xamné yi pour ce qui est de la SOTRAC et 9 milliards 114 millions pour ce qui est de la SIAS, 1 milliard 500 euh, pour ce qui est de Ama Sénégal, 2 milliards, ce qui fait un montant total de 12,6 euh, milliards que l'État nous doit depuis très longtemps. Si je prends l'exemple de la Sotrac, Sotrac nous coûtait en 1998, il y aurait nous montant euh, où 14 milliards. Bon, nous avons négocié pour 14 milliards parce que c'était 24 milliards au début nous tordons nous le cou, poussons nous à aller à 14 milliards. De fait, nous une négociation, nous avons fait 5 milliards, nous 9. 9 milliards, nous avons fait depuis 1990, euh, depuis contrat euh, euh, Alors que, tout l'argent était négocié, euh, de la liquidation était négocié, nous avons la table. Donc, nous, 9 milliards, 114 millions, nous avons fait. Nous avons fait. Nous avons fait ñu amee leen un milliard cinq cent ak waa Ama Sénégal ñu amee leen deux milliards ñu dajee def suñu collectif parce que ñoo bokk lu ñuy revendiquer pour nous def une grève de la faim pour que enfin état nous ñu déglu nous ñu fay suñu bor parce que xam nañ ne mën na am nako parce que nous nous koy won ci yeneen ay opération maintenant li ñu jaaxal kay moy lan moo tax boobu ba ak instruction yi le président Macky Sall di joxe pour ñu fay ñu lan moo tax état ñu fay batay c'est ça notre problème parce que dafay am loo xam ne lii bu fekkente ne li ñu dal daf ñoo dalandoo ak ay sociétés yu bari lu mel Air Afrique mu ngi fi woon ñu jukki Air Afrique fay leen lu mel chemin de fer ñu ngi fi woon ñu jukki chemin de fer fay parce que ñooñu am nañu ñu leen taxaw mais ñun wa ex agent de la Sotrac ama axias, SIAS amuñu ku ñu taxaw te amatuñu benn moyen de pression boo xam ne moom la ñuy def par rapport à l'État ba tax na am ci yaakaar rek mooy que le président de la République nous entende en tant que décideur suprême nous entendons, pour xam ce lii ñuy laajte du ay loo xam ne dañ koy ñaan wala lu ñuy fait. non mais ay droit la yoo xam état sénégalais moo ñu ko amel. ñu revendiquer te duñ ko le bu mukk pour état sénégalais Si ñu nous yaakaar nag ci que le président de la république nous entend. parce que nous, jusqu'à preuve du contraire je damay xalaat ne xanaa lii Macky Sall daf ko même su fekkente ne ci déclaration parce que itam quoi qu'on puisse dire il avait donné des instructions mais peut-être qu'il n'y a pas instructions yooyu kenn parce que je ne peux pas comprendre que le président donne des instructions que ces instructions ne soient pas appliquées et qu'il n'y a pas de répression il n'y a pas de correction malgré toute la rigueur qu'on lui connaît loolu tax na nag pour interpeller directement di monsieur le président les nga waxoon ne régler pour les ex-agents de la SOTRAC de la SIAS et de Aman Sénégal Instructions instructions ngi ci kenn c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à entrer en grève de la faim Lolo moo nous déjà dellusiwaat suñu grève de la faim grève de la faim bi dafa que loo ne ay ñun ni. man ci ci ci ñi ci a ndaw 63 ans cette année donc gis ngeen mag ñi xool ngeen ñi nekk fii ñu ni mel ñoo nek ci biir pour def grève de la faim pour réclamer cet argent là donc Lolo, nous ngi interpeller toutes les autorités moo xam politique moo religieuse

Nous di ko fëgg ba ñu wàcc ba assemblée n'a jamais répondu à notre appel engagement est le jëloon fii la donc pouvons mënuñu comprendre cela. pourquoi ñuy wax état mu mel ni duñu ay sénégalais lan la pourquoi ñuy seppi di def kumba am ndey am kumba amul est-ce que c'est parce que avons amul moyen de pression que l'État ne doit pas nous écouter ce qui ne doit pas être le cas surtout que le président de la République a donné des instructions sur cela Nous tax na ñu ngi est daal képp ku ci képp ku mën a fexe ba le président Macky Sall fay ñu suñu ay droit ñu ngi lay talal loxo di la ci ñaan ndimbal parce que franchement sonn nañu ba fi sonn yem waaw sonn nañu ba fi sonn yem suñu kër yaa ngi tas les ménages sont disloqués xale yi seen i jàng yàqu nañu ñii amatuñu fu ñu dëkk fu ñu dëkk ñu génne leen ñii dee nañu ñii amuñu lu ñu fajoo parce que am na damay wax ne am na ex agent yoo xam ne yi tey dix mille francs bu fanaanoon ci seen poche nous ñu au hôpital parce que nous te amuñu nous ñu fajoo Nous fenn di dox ak pathologie bay daanu ci rôle rôle maintenant, et pourtant c'est ce que nous sommes en train de vivre Nous loo état ko dañuy wax mais nous état c'est l'état qui a fait de nous des donc nous indemnisation ci état mo tëj suñu suñu entreprise état mo ñu déflaté état mo ñu amel bañ ñoo fay état mo ñu sétane ñuy xif di mar di feebar di dé kenn par kenn donc qu'est-ce qu'on attend bi ñu fay suñu xaliss mais grève de la faim bi ñu ko tambali demb demb nak c'était symbolique lu tax ñu tambali ko demb xam nga Dakar Dem dik ñun ex agent de la Sotrac dañoo nekk actionnaire ci Dakar Dem dik de 13,33%. Dakar Dem dik doon recevoir ay bus yoo xam ne yii président de la République Moko inauguré Nous, les ex agents de la Sotrac étant actionnaire de 13,33 les deuxièmes actionnaires après l'État on n'a même pas été invités à cette fête waxuma la nous, organiser parce qu'après l'État c'est nous mais on n'a même pas été invités, comme associé associé donc l'OLU, injustice beaucoup, beaucoup, beaucoup, comment est-ce que des actionnaires puissent être oubliés dans un conseil d'administration comment est-ce que des actionnaires d'une si grande euh, facture puisse être méprisée ou mise à l'écart hein, débarrassée d'une fête yoo xam eh, une société de transport qui recevait des bus amuñu fête bu gën a rëy waaw grève de la faim bi démb lañ ko on a choisi ce jour de façon symbolique pour voir notre suñu désarroi suñu mécontentement ak suñu isolation On ba nëga nii kenn ñëw fi waaw kenn ñëw fi parce que nag wax dëgg yàlla ah ñun mépris boobu yàgg nañ koo dund mais nous décourager lo, nous abandonner lo. on n'abandonnera jamais jamais cette bataille nous avons certes comme Nico euh, slogan bi nous avons perdu la Sotrac nous avons perdu Amas Sénégal nous avons perdu la SIAS mais nous n'avons pas perdu nos droits Et suñu droit yooyu dañ koy xex, inshallah. le président de la République répondra à notre appel au moins pour cette fois et que ça soit la dernière fois et que nous nous pour définitivement mu waaw xam nga grève de la faim moom mooy arme ultime képp kuy xeex ci lii boo demee ba tudd grève de la faim mooy amatuloo pexe parce que xeex ay arme lañ koy defee ay stratégie ay lii mais boo demee ba sa bakken ngay tayle ko pour jot sa àq ak sa yelleef mooy sës nga danoo sës nag te fii cette fois amoon nañu benn grève de la faim à Pikine des négociateurs nous ont demandé de suspendre le mot d'ordre en l'occurrence Mame Makhtar Gueye bu Jamra nous avec avec le médiateur de la République nous confectionné un documents à la présidence euh, au ministère des Finances mais ça n'a abouti absolument rien comme aboutirul nous avons repris notre mot d'ordre nous sommes dans cette même euh, logique nous avons repris ce mot d'ordre de grève de la faim mais cette fois nous avons benn médiateur le président de la République réellement